lakk bi daal man bi muy tàmbali sax nekkuma fi quoi boobu daa fekk ma nekk dëkk ba mais sama rakk ma fi nekkal moo ma woo téléphone quoi à 5 du matin ma daal marché bi mi ngi tàkk quoi. ah léegi bi ma ko waxee tamit ma xam ni euh, euh, il faut daal euh, ma ñëw teewe si ko boobu daal daal di jóg daal di daal topp yoon bi daal di ñëw si sax si quoi mais ma ñëw gis naa ni daal vraiment métti na lool waaw ndax lakk leen nañ ci ñaari dépôt daal waaye sant yàlla parce que daal comme na amu ci benn blessure daal li sant yàlla quoi. man de dematé de sama kër bi ay 4 heures di matin ci lañ ma woo ne ma ma kaay marché bi mu ngi laat ci laa jóg ma ma jàpp ñëw bi ma jàppee rek dama jàpp rek jóg ñëw ñëw fii bi ma ñëwee fekk naa place bi commencé lakk takk-takk bi àgg na si sama place waaw xam nga mënoo ci dara da ngay taxaw di seetaan rek. dañoo julli ji woon tabaski ji daal tey ci ay fajar lañu woo quoi wax ñu ne ñu marché bi mi ngi lakk ci lañ déparé loo quoi ñëw fii ne. biñ ñëwee nag ci lañ fekk lépp lakk daal ba jeex tàkk. ay 6 heures lañ ma woo ne ma marché bi mi ngi lakk te xam naa tàq-tàq bi am na doole mais am na ñu ne moom ay côté 2 heures yooyu noonu la commencé la démarré la démarré xam naa nag jombut ay lu mel ne ay courant yooyu noonu moo koy waral mais lépp moom day dellu ci aju ci ci ndogalu suñ borom nag ay dañ mën ne daal ay une heure du matin la tàmbalee fale di takk di ñëw. waaw mais man ban bi ñu may woo man ay quatre quatre boobu quatre heures jot na man laa xam mais li ko sooke moom wax dëgg actuellement xamaguma ko mënaguñ ko xam daal ndax waxag kenn waxaguñ ñu ko ndax euh, waa Senelec nekkoon nañ fi police nekkoon na fi def constat mais xam amaguma information ci loolu. ba fi may wax yow di daal xamaguma exactement lan moo occasionné làkk bi ñi naan ñi naan euh, courant la ñi naan gaz bi explosé la mais de façon daal xamaguñu waaw léegi defaguñu benn enquête defaguñu ko daal. mais li wér woo daal mooy bëgg nañ daal fii tamit moom ñu ñu ñu def enquête boobu am ci lu leer lan moo ko lakk. sappoor yi nag wax dëgg bu ma ñëwee fekk naa leen fi ñuy def liggéey bu rafet ay jàmbaar dëgg lañ waaw loolu moom man man naa mën naa ko seere ndax man ak ñoom ñoo fi nekk depuis quatre heures ba biñ ko fayee ay jàmbaar dëgg lañ. waa sapeur pompier laa fi gis vraiment ñu ñëw def liggéey bu mucc ayib mu taxaw nañu comme nañu war a taxawoo quoi xeex nañu safara ba deux millions ko gis ngeen ni moom vraiment dara sa dara tàkkatul. ñu leen di ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waa sapeur pompier yi quoi. Euh, à sapeur pompier yi yéen it yàlla njëkkoon naa dëgg yàlla def nañ fi liggéey bu rafet mais lenn rek moo am suñu benn défaut fii mooy koñ yi nga xam ne oto yi da si war a ñëw jaar moom la ñu war a baare si buntu kër yi dana gis ki nga xam ne day jënd ay cantine di jaay foofu léegi oto amatu fu muy jaar. man yàqule naa ci ñaari dépôt ñaari dépôt laa ci yàqule benn bi buy la defoon bi ci des ceeb la defoon benn mi ngi sa ginnaaw nii beneen bi mi ngi ne quoi. lépp day yàlla dogal na daal di fekk naa sawar bi jël lépp quoi. waaw ñun moom ñi ngi doon jaay ay parfum ak i cuuraay daal waaye nag li fi yàqoo moom bari na trop bari na lool yàqu moom defe naa mënuñu koo xayma moom bari na trop. balaa su cuuraay la ay parfum waaye xayma bi moom bari na lool. apa pare près ay 15-20 millions moom warna na far na koo mat xam nga commerce mo demé non bagage yi daanaka am na ci yoo xam ne si sax do do mën xeyma dal amna ci sama ñaare rak itam yu seen place la bi fi yàqu mom bari na ndax euh, bagage cuuraay ku ko xam-xam dafa 10 dafa bari dafa bari dafa 10 bagage euh, ku ko xamul rek xana mais ku ko xam day xam euh, xaliss bu bari la waaw ndax place bi gis nga ko amul même étagère amul amul dara lu lu lu lu lépp a jeex waaw ba bagage bu bëri moo fi nekkoon même am na xaalis sax boo xam ne desoon na fi te dem demaale na ndax bi ma ñëwee fekk naa safara si di génn porte bi aw ma accès pour man a mën a génn sama xaalis am ma accès pour mën a def dara. man sama place a ngi woon nii maag sama grand bi place bii lañ nekkoon fii fii fii mooy suñu place lii nii suñu dépôt la démb rek li fi def daanaka bu matul 4 millions tamit man na 3 millions 500 démb démb démb. kii bi bi ma fi nekkee quatre heures ba léegi maa ngi leen doon gis moom wax dëgg ci guddi gi biir guddi gi yëpp maa ngi leen doon gis mais am na ci ñoo xam ne gisuma leen man ndax tam dañoo nekkoon ci liggéey ndax yëf yi moom fitna la nga lakk lakk moom fitna la ku ne da ngay xool nan ngay def ba fay. non ma gisaguma kenn ku fi ñëw gisaguma kenn ku fi ñëw gisuma maire gisuma kenn gisuma maire gisuma ministre. ñëw nañ fi nag man nag xam nga presque ba ma egsee ay trois heures de temps la egg nii ne ne waaye wax nañ ne ñëw nañ fi daal. suñu maire bi nga xam ne moo féete suñu côté bii kooku moom xanaa dañuy ñaan suñu borom gën koo kàttanal gën koo dimbali mu gën ñoo mën a dimbali mais moom ci fajar man avant maa yegg si dégg naa kàddoom mu wax métti lu métti lu goo xam ne sawaay bu fekkoon te ne lu luy jóge ci loxoom la kon du am. waaw instant bi nag pour l'instant man gisaguma kenn nag wax dëgg yàlla. bi moom li fi yàqu bëri na lool. bëri na trop trop trop waaw. waaw li ñuy sàkk ñoom daal ñu jàpp ci rek. waaw dugal ci seen loxo bu baax a baax ndax li fi yàqu bari na lool. ñun ñoo leen xaar rek parce que ñun boo xoolee dañuy fay suñu taxe ba mu mat dañuy fay juuti di fay patante di fay lépp ba mu mat amuñu benn taxe boo xamante ni dañoo ñu koy boycotté quoi kon nag léegi ñoom dañuy leen di xaar daal ba xam bu ñëwee naka la ñuy taxawee daal ba xam dañuy ba xam dañuy rémunéré wala daal ñun ñun daal ñoo ngi nii daal. ñun ay borom kër la ay borom njaboot la gis nga man daaru laa jóge di doog a ñëw. dépense bu ma joxe suba sax awmako fiñ tolni fi li ñuy ñaan kay ñu état dimbali ñu ci lu gaaw xol ñu ñu defal fi ñu mëna a war suñu place liggéey ci lu gaaw kay. instant yi mom ndimbal lu gaaw rek waaw lañ gëna soxla fiñ tolni waaw wax dëgg yàlla ñi ci bari dañuy taba taba seen place yi ñi ci bari dañ leen di jox bagage rek ñuy liggéey ci verser xam nga rek waaw manam dal metti na dal état de mom lu def lu dul jàppale waa marché bi. ndax fi mu ne même ñu ñu bokkul ci làkk bi sax ñu même ñu làkklewul xëyu ñu tey liggéey ndax affaire bi ñun ñëpp la laal waaw mu ñuy xool nan la ñuy jàppale waa marché bi defal den seen place jéem a dimbale nit yi ci footam ñu mën a taxawaat ndax xam nga koo xam sa place dafa jeex am xaalis bu fa nekkoon jeex euh, euh, jeex amuloo pexe amoo beneen pexe te xam nga marché ni muy dem ñëpp ki képp ku xam commerce ni muy doxee xam nga marché ni mu nan lay doxee.